coupé li di données mobiles yi application TikTok nag topp na ci ci ab bataaxal jëwriñ bu yor wàllum communication télécommunication ak lii di économie numérique di xamal askan wi ne application TikTok nag nekk na jamono ji réseau bi nga xamante ne moom la band yi jël ngir jaxase réew mi mu di nak dogal boo xamante ne ñàkkul di jur nag ay gàllankoor ba tax ñenn ci ñu koy jëfandikoo di ko ñaw la bu baax. loolu nag euh, nekkul gulet parce que ba pass defoon nañ ko. li ñu si tey jii euh, internet dafa nekk outil boo xamante ni moom la ñuy liggéey chaque jour te bu ñu demee ba restreindre ko couper ay yenn réseaux sociaux yi dina am ay gàllankoor yu bëri ci wàllum économie mais si économie bi mais ci wàllum ñi nga xam ne ñoo koy jëfandikoo. buñ sukkandikoo ci ki nga xamante ne xam-xamam màcc na ci wàllum TIC. di wuyoo ci turu Basile Niane moom mu ngi xamle ne nguur gi mënoon na jël beneen pexe ngir faagaagal ñooñu le xool ñi nga xam ne ñoom ñooy lancer message yi si wàllum haine wala résistance ñu jëm leen traquer parce que am nañu moyens yi def ko noonu waaye tey boo demee bay couper lépp si euh, wàllum données mobilier ak ay réseaux sociaux loolu nekkul solution ba parce que boo couper tamit wifi baa ngi fi bàyyi nañ ko pour pour nit ñi mën a discuter. bu dee leer na jamono ji internet nekk na loo xamante ne soxla nañ ko bu baax diffusion nekk na ab droit buy tax ak acteurs yi di ñaaw li ni mel waaye Basile Niane di xamle ne liñ jot a dund ci ay jëf yi ñaaw rafetlu wu ko dara.